asalaamaaleykum mbokki jaxaaw bi mobilisation ci waxtu gi coalition am fii waa jaxaaw am responsabilité bu mag a mag ci fi Sénégal tollu fii est-ce que xam ngeen lan moo tax ma am mbégte gu jafe-jafe-jafe gu wuuteeg feneen fi ma mënti dem te mbégte gi ma am fii jaxaw tey waa jaxaw ku wax jaxaw wax buur siin kumandoo fen juuf sama yaay juuf la sant kon samay nijaay ngeen kono waaja inoox yo no mbapo o ndokoor nuun o ndokoor nuun a kumnuxa a jubal pale ndax kan no ngal na ɗeetan ta ñaaƴa no mbuuɗa kon mbapeeno no ndamoo cafum ta saɗik bata waaga bok na gata waaɓaan waaja haw andam gan no ñawa parce kan dafa nijayees dafa xooxoox nuun taxo um leyanga fay biram penda wagan salmon o yaasa lembam boursin commando fen diouf kon kam refa madna faap refa madna yaay wa jaxaw siin a ndafan jayes kon mam jofnoxa nu jega te responsabilité maak na gena fadin kaxam maaga gena saɗ ka cafes maaga gena fap kaxam bo ge andoona te ref mission in a mbaag na matalo o bale len nu nja'a Kamrek Casamance na cousin gegin jolaawe o maaka ñaaƴ a qicirel a xeɗa bo fadno mi allah mbam balalen ka a tegano ɓeyof pour wene ndefna sénégal a saltela no mbaxal mbaleno boto xool xaj ngar to tama lakas kamo biir sénégal um boka balala ɓekin kamo auto es sutnum bara rokma kama sin om ley balale men na sog sini pasque maaga tagootika a sootika wa sin laydeno ɓiw nuun o layreta a xecerkel maat so a soɓ maat na ya a soɓ maat na faap a gar ma nijaayum a lay den maxey reta waaɗ ka maat o leŋ waage gar men xay a leŋ wa jaxaaw nijaay siit nda fi'a fog ne candidat ke ano lem kana faafang Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon gaaga mi dong jigin kama jaxaaw mi refaɓiwna qoxoox an ga qoqalas na jafe jafe xay um buga damta nuun te damit xooxes lam bo man toluma xane o qoles o man na commune ne monsieur le maire Serigne Gueye Diop merci monsieur le maire sama rakk ji doon toppatoo sama tool ci sa commune nee na ma ne woo nga ko pour ne ko mu ñëw signer dem fay jël redevance au niveau du trésor public kon xam ngeen ne bàyyeeguma mbéy ba tey kon xam ngeen ne gëm naa mbéy ba tey parce que doomu béykat laa dama dégg bala bala gay de doon wax ne xaalisu ramu lañ ma njëntee man xaalisu béy lañ ma njëntee lañu fayee sama njàng dama taxaw seen kanam nii di leen wax ne laaj di laaj Sénégal ñu jox ma réew mi kon xam naa lan mooy solos mbay kon waa jël leen seen responsabilité il faut pas anda sax na in fop na ngeno ka ga andona mbaɗna tekna in to dali a ɗaxan no xoox in yoonate nan fa responsable ge andona dans commune de Diakhao dans le de Fatick dans tout le Sine Saloum mbog nana coalition Diomaye président wo i mbi'a un remarquable travail Babou contanami na contantuma no euh, coordonnateur communal fe faak layam fo maire na maître sila a jega me a leyna ndool nda ɓaate no fit ɓaate no fit nuun wa jaxaw leye no refu min jomaay refo ndokoor in jegro pexey na fi'oona kam a jaxaw refange boktidoomaay te jang responsabilité um parce que la rupture transformationnelle qui s'amorce ne peut pas se faire sans les jeunes qui doivent courage à pour transformer ce pays espoir une nouvelle ère de rupture s'ouvre au dina changer par force dina changer yi toog lu fi sotti ñu sàcc ko yorin gi ñaaw na respecté wuñu askan wi leen fal depuis 12 ans ñu ne jox leen ñu ñu continuer rawatina nag ñu tànn ku ci gën a mën sàcc ci ñoom ne moom la ñuy dénk du fi amee du fi amee Amadou Ba du fi nekk njiitum réew gan ñoo doggali jamais de la vie yor na ñoo yoro yor yàq réew mi salteel nañ ñu mbokk mi mbokkoo mi Sénégal dañu wax ne benn boppara kenn mënu ko xar ñaar waaye foog ma ñëw dajalowaat ba boobu parce que tas nañ ko tasar ci rek seen nuñ yor yoran gi ñu yor di féewale Sénégalais yi lépp nekk à terre je vous garantis que je prendrai des mesures fermes dès ma première année pour refonder les fondements du vivre social foog Sénégal yi ñu wax ne jàmm amatu fi ñu deloowaat jàmm paj mi ñu defaraat ko école bi ñu defaraat ko mbéy mi surtout ñu defaraat ko kon je vous promets une ère boo xamante ne ce sera une gouvernance saine man mënuma ànd ak sàcc du ma jël sama conc di ko teg ci loxo sàcc boo xamante ne dafay lor Sénégal du fi amee loolu jeex na de il ne reste que peu de jours pour que cette ère soit enterrée parce que les aspirations de la jeunesse de ce pays-là du peuple sénégalais doivent être portées avec un sérieux day wax ne Diomaye dafa sérieux trop ci yorom réew sérieux du ci doy bay trop sérieux du ci doy réew mi toll na foo xamante ne il faut que ñu xoolante suñu bët jël beneen yoon parce que yoon bii ñu jël moo tax suñuy ndaw yi di daw daw di génn dëkk bi di dee ci géej gi di dem ci beneen dëkk boo xamante ne ay nit kese ko defar il est possible de développer ce pays là lenn rek lañ leen di sant ngeen jàppale ñu fal la coalition Diomaye président doo leen ko rëcc mukk mukk kon maa ngi leen di sant baax a baax benn bant bii may benn jaxaw moom lay xaar yéen ngeen jël seen responsabilité tamit par rapport ak ñi nga xamante ne ñoo ma ko jox dama jox leen ko yéen samay nijaay yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi gis ngeen noonu le discours du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye ici à Diakhao dans le département de Fatick. te noonu le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko du ci jaxaw. Hoffentlich ist der Nonno. La caravane va continuer actuellement. ayca ayca. waaye tamit nag bale bi nga xamante ne génne woon ci communiqué ak mbokkam yi ci kàllaama muy séeréer donc. ci jàppale askan bi jàppale ay mbokkam. mbokk yi gis nga noonu. instant bi nag Gossas lañ war a dem. ne seen la mbéy la ñu xam ak yëpp waaye am na kàddu yu am solo yoo xamante ne ki nga xam ne muy le président Bassirou Diomaye Faye wax na ko lu gënee maanaam ñi nga xam ne muy ah, waa jaxaaw buñ ko joxee ñi nga xamante ne muy réew mi ah, dinañ ah, gis ngeen noonu discours bu am solo bi nga xam ne le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati ko